Heavy Mess.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 ay way samba boy bi mu ngi wuyoo ci turu dees di ab agent de sécurité teg ci nee ñu sawaay ci première vague covid 19 bi la tàmbalee rakkete commerçant guinéen yi li mu doon def ba leen di escroquer nag mooy da leen doon tiital ne leen da ngeen di violer état d'urgence bi waa ji nag bu daan ñëw ci commerçant guinéen yi ma ne daanaka comme gendarme rek ceinture bi ci ndigg li yore pistolem ak ay monot ma ne nag sawaay fu mu jëlee bagage yi lañ doon wax ne commandant brigade bu gendarmerie bu Kër Massar moo ko yebal di leen raketé rek sawaay nag def na ko ay commerçant yu bare bare bari ñi mu raketé leen trente-huit mille ñi mu raketé leen cent cinquante mille hëppatalaw waaye nag li wolof njaay di wax naan sàcc ndënd yomb na waaye foo ko tëgee jafe moo ko mujj dal ndax commerçant guinéen yi dañ ko mujj démasqué sawaay bi ko gaay jàppee nag dañ koo jàpp wulli ko wulli yu métti ba noppi daal di ko yóbbu gendarmerie <laughs> waaw góore waay fi mu ne nag defeere nañ ko pour usurpation de fonction ak extorsion de fonds <laughs> ay waay bàyyi leen sàcc moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax la xew ca village bu ñu naan kelle doy na waar waaye daal moo fa jàpp jabaram dóor ko ba mu jaare fa ñàkk bakkanam <laughs> ëskëy ndaw si ñu faat mu ngi wuyoo ci trois ka am fanweer at ak juróom ñaar nee ñu nag yëf la demee jëkkër a jabar jooju nag te ñoo jàppante jàppante bu metti le 3 février bi weesu ci noonu jëkkër gi dóor ko ci baat ak ci bopp dóor yu metti ndaw si biñ ko évacué hôpital ci la jaaree ñàkk bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun saytaane baaxul ndaw si ñu faat nag bàyyi na ñetti doom ma teg ci nag ne doom yi laa yërëm ndax fi mu ne ñoom ñëpp jirim ndax fi mu ne seen yaay génn na àdduna te seen baay ci kas kaso ba la jëm moo tax ma ne jàngoro ji dal mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca ñaxi raat doy na waar ab maçon buy woo ci turu te moo fa jàpp jarbaatam bi di woo ci turu MW am fukki at ak ñaar tàngal paaka ba muy sens ñaas ko ci ndigg li haw law naa def waay waa ji nag nee ñu lu tax mu def lu ni mel jarbaat bi dafay loxo ci poos moom daal lu mu jekku ne ko tungaañ xale bi nag nee ñu mi ngi def classe C1 waaye daal mu jekku mu dem sa nag li mu def ba teg ko loxo dafa teg dix mille francs ñëw gis ne dix mille francs yi am na luñ ci comp naka noonu waxul xale bi dara ci la tege beneen pièce ci la dix mille francs teg ko ci béréb ba sa bi mu ñëwaatee ñëw fekk dix mille francs bi ñu rocc ci deux mille naka noonu ci la woowee jarbaat bi laaj ko jarbaat bi nekkoo gisuma ko ci la dem fuyote ay kayem fekk ci biir deux mil yi ay waay xale yi ñoo bari pexe de sa waaye nag ci la defee njombe li mu def waaye nag mujj naa metti ci moom de ndax yoon mujj na cee am yoon donte sax ci kanamu yoon yaayu xale bi jéggal na ko waaye attekat bi mujj na ko daan benn atu kaso boo xam ni weeru lëmb dana ko tëdd cëy mim réew moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Cambérène romb na doy war ab néew la fekk ci ab oto ci VDN prolongé bi waa dañ ko faat ba noppi noppi takk ko ci oto bi tey mim réew am daal rey rek waa faat mi ngi wuyoo ci turu NG di ab bisu cee waa ji nag nee ñu daa waroon a dem Dubaay ngir jëndi ay or naka noonu nag avant moo dem am na waaju ko yoroloon xaalis dëkk ca Pikin di wuyoo ci turu Beecaam sawaay nag ci la demee jëli xaalisam nee ñu mu ngi génn këram le 13 février bi weesu ci boori 10 heures ne bu xamoon ne dem la fooy jëlee de du dem sawaay nee ñu bi mu génnee këram lañ ko gëj a gis ba noonu ci la famille bi dal di saisir section de recherche bi ñu mënee seen enquête nag ci la ñu localiser téléphone iPhone bi mu yoroon ci place bu mali Malibu am na nag ku ñu njort ne moo ko faat te muy beecam mi ko yoroloon xaalis xaalis bi toll ci juróom mbenn million ba fi mu ne nag beecam teg nañ ko loxo NG mi ñu takk ba noppi fat ko ci biir otom nag nee ñu mu ngi bàyyi ginnaaw benn soxna bu ëmb ak benn doom ay way ay way ca otom nag fekk nañ ci quantité or bu bari moo tax ma ne réew mi daal dafa neex réew moo xam ne da ngay faat nit ñu jàpp la yóbbu la kaso di la jox suñu ceeb ngay lekk réew mi li fi am dafa yomb trop ma ne réew mi leen rek fii jëlee rey bu dee ku faat nit te tey ko ñu jàpp la faat léegi faat bakkan jeex waaye réew mi saa boo yeewoo faat nañ nit faat nañ nit faat neppi jàpp ko tëj ko ci kaso yi muy lekk ceeb yomb na mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje ci yeneen xibaaru buzz